tey nga réeri ñetti biskit ku daan réere taalaala tey nga réeri ñetti biskit ku ah. daan ki loolu weñ yow eh aw na kum laala mi ci xomba kum laala mi ci xomba kum laala mi ci xomba eh esa yaay mel ni soleil booy lii saf na si mu rëb neex na de parki esa yaay bës ma faal temps yi yaa xew yaa ngi toj dëkk bi non Fall Fall su ma màggee yàlla naa mel ni yow. Eh, Fall amiin eh, Fall yaa ngi partout dans le monde. yaa maa leen wax lii. non yow tey tey bis nekk tey. tuddee naa la Fall Buzz. jeex na tàkk naa la Fall Buzz. international la xaar leen xale yi dañoo réew. waaw waaw yor na ma fii. Ah, ah, ah. kër gi yaa quelque chose de. waaw fii fii fii moom la mari yi nga xam ne dañuy taxawaalu rek. ndeysaan yëngu ne yaa nga YouTube. Eh, yow loolu nga wax dang Fall. yéen ngi yaa ngi Instagram maa ngi fépp. ne yaa ngi TikTok. maa paa bi day encaissé day encaissé te tamit. damay assuré kon yow yëg nga ni. international la abaa mu ngi lay waxtaane. xam naa loolu. non booy que yëg nga ni est ce que moom yëg na ni. Euh. Pape Cheikh Diallo koy waxtaane. moo yow international la. a eh, jotoo ci. ah jotoo ni Pape Cheikh Diallo mi ngi lay midi fii yow. xam naa loolu. bés na ki tey. Mhm. maa la tuddee Fall Buzz. loolay wax dëgg nag ah waay na waaye naa la xamal leen <laughs> sa buzz bi doy na waar. Ah. kon kii xanaa bu yëgee ni aada moo ngi ci kawam moom day wàcc. Ah. nga xam ne lépp dëgg la. non Adama moom man ma jot sama bës. <laughs> ah ay taat rek lay wane. <laughs> père Fall bàyyil xale yu ndaw yu père nga bañ. père yow yaakaar nga ni yow yow daal yow coupe du monde 2002 dafa jàll rek yow nga jàpp kan 2004 bi yow pour yow xale yu judd 2004 yëpp pour yow la. mais pour lan. à l' angle vidéo yóbbu ko. tamit ah, mu neex nga nelaw bàyyi loolu. loolu. yee père fi mu toll nii de moom. mais booy vidéo bi tasul noonu. maa ko yor. ak man. ak ña la waa waaw léegi dimbale leen ma leen comme yéen a ci jot. Hmm. fexe leen ngeen téyel ma ko te yàlla tax après nu xool nu ko waxtaanee. lan. waaw dimbali leen ma day am jàmm kër kaaw. loolu dong la kese waaw kon jàmm dina am. waaw waaw et puis nag xam lu ma bëgg. Ah. Ah. wax leen ma ni ngeen ko bëggee. Ah. ma defe ko ni ma ko mënee. Eh, dañu wax la ni ñu ko bëggee. nga def ni ñu wax leen ko ñu ko bëggee nga def ko ni nga ko mënee wax leen ko ni nga ko bëggee nga def ko ni ma wax lu ñu ñu ko defee léegi nag xam nga nu ñu ko bëggee waaw nga may ko jàmm mu seere lu neex waaw di dund lu neex uh-huh. fee ca kër kaaw jeex na tàkk léegi nag booy loolay am sax mën naa ne léegi hmm. kër kaaw heure bu la neexee dugal waaw waaw heure bu la neexee génnal am nga jàmm yow vidéo yi dinaa fexe ba aadama. non téye leen vidéo yi nag téye leen ko. téye leen ko dinaa fexe ba aadama du ko tas nii douze laa jëm. waaw damaa war a yóbbu gune yi seen kër ma. waaw mais boo fekkee kër kaam. waaw dina la gérer affaire bi. dëgg neexul. maa ngi dem Tandiaw. ma dem bi dem ma dem Tandiaw. maa ngi dem Tandiaw. maa ngi dem Tandiaw. maa ngi dem Touba yi. saay saay la. Fall bàyyi ci xel benn. cow they cow, to the <laughs> car. Oh Michael Comment vous allez Ça va, ça va. Tout va bien ça, ça marche très bien. Ça marche bien, oui. Ouais, depuis, depuis, depuis, depuis longtemps. Hein. Oui, ça fait un bail. Oui, oui, hein. ça, fait un J'avais des problèmes à régler dans le quartier, tu sais, que je pars partout, je fais des <laughs> petits business et des petits Michael! <laughs> mais, mais, mais tes tu es venu maintenant au vrai Sénégalais. Hein. Oui, aujourd'hui, c'est vendredi. Ici au Sénégal, les vendredis, tu portes la vie vie sénégalaise. Michael. <laughs> Oh, Michael. Oh oh mais tu entends les, les amis qui, qui est à Faras Et ça fait un bail que je n'ai pas entendu les gens qui sont là-bas. C'est pour ça que je me suis venu tout de suite là. ah oui, oui, oui, oui. Moi, avec quelques tarènes, je veux partir après. Ah, tu as envie de sortir euh, Mais j'ai envie de sortir pour aller au marché, hein? euh, régler quelques détruits, après j'arrive quoi. Avant que tu parles j'aimerais bien te dire quelque chose là. Moi Oui tu sais Allez-y, allez-y, euh, comme vous voulez. bon, Kao. Mhm. alors ah, nous yow xam nga ni man la bagn kat la. non c'est vrai. oui c'est vrai c'est vrai. depuis ñu nek Europe. Ah, hmm? tu sais que man damay liggéey. dama koy ñafe. Deug la nak réewu jaamur bo fa démé amna yenn melokaan yo xamante ni boko yoré, ko yoree. Uh-huh. duñ la mëna nawlo nawloo te duñ la mëna accepter. c'est vrai c'est vrai loolu moo waral ñu yaax sama samay indi waat ma fi mais tu sais bien que mm-hmm. yow man buñ démé fé link bi man dama koy gérer. c'est vrai c'est vrai très bien. c'est vrai oui t'es un guerrier, t'es un guerrier. mais eh, en fait en fait qu'est-ce que tu veux. Je veux que ouais. on fasse quelque chose. Tu sais que tu as de l'argent. Mais tu un me financer. Je veux des compagnons ici. Lorsque tu pars, je mm. peux gérer ici. Et je veux que tu règles mes papiers pour que moi aussi je parte. Parce que j'ai envie de partir là-bas parce que j'ai des choses à régler là-bas. Ok. Mais Michael, toi là, <laughs> ton nom, tu as fait un dégât grave là-bas en Europe. Oui, parce on a fait tes affiches, tes affiches partout en Europe. Moi, j'ai vu ça, j'ai vu ça. c'est que... Hein. tu, sais que ça, c'est une grande victoire. Un Sénégalais qui part en Europe et son affiche partout. Ouais. Ah, non, mais cette victoire, c'est pas la victoire normale. J'ai tout abandonné pour le boisson alcoolisée. Euh. Je les mettais là. <laughs> bon, tu, sais que toutes les choses qui sont arrivées de toi, c'est le bobo, c'est l'alcoolisé. C'est l'alcoolisé qui a fait tout ça, tout ça. Ah mais <laughs> c'est grave parce que c'était grave. Bon, maintenant, euh, maintenant, il faut que je je, je, je, parlais avec, avec euh, mon troisième femme hmm. qui s'appelle Bébé. Bébé Bébé, on s'est croisé à France, tu hmm. connais Bébé. Quand je parlais avec lui, j'ai un nièce, mon nièce quoi, que Badam quoi. Hmm. Badam, Badam. C'est quoi Badam C'est euh, mon nièce. Ah, ok. Je comprends. oui, qui s'appelle Bass il faut faire travailler parce que c'est lui qui est mon, mon, tout mon travail, c'est lui qui est, qui est, qui est, mon, tout mon travail, qui gère mes travail. Merci. Euh, mais avec tout que c'est dit, il faut laisser de combattre. Non, y a parce que toi, tu combats trop, quoi. Tu combats trop. Avec ah, tes casiers judiciaires, il faut se regarder après les casiers judiciaires. Oui, <laughs> oui. Il faut laisser des sangs. kaw la kaw man de kaw kaw de kaw. ravi de faire la connaissance bopp kaw kaw na bopp ala kaw. kaw de kaw man. waaw téeméer na nga may koñ. oh kaw kaw man de kaw kaw de kaw. may koñ. c'est ça. ils sont pandina. waaw Fall. waaw. ba jàmm daal. waaw jàmm rek jàmm rek. Eh. Fall fan yii nii ma tiite woon. ah loolu loolu loolu kii na mais nag. affaire bi yëpp xam lu ci gënoon a garaaw. mooy waa ji. ndekete man pelantu ma. mu ne. ndekete man pelantu ma woon. ndekete pelantu bi yow sa moo ci nekk. turu kan. sa moo ci nekk. man kese. yow kese yaa ci nekk oh, ndekete. Euh, bi ma demee nag ba ci biir ma xam ne yow yaa ci ne ma expliqué benn agent benn booy booy bi ñëw mën a dem wax ak moom bu booy bi wax moom sax booy bi dafa bañoon ne du ko dindi léegi ma expliqué booy bi comme li ma jotoon a jox noonu booy bi nga xam ne moom moo ko doon dox moom laa ko jox. booy bi dem léegi ba mu retiré plainte bi léegi retiré na plainte bi léegi moom yow moom mucc nga mais da ngaa noonu dem kaso waaye mucc naa ci rek mais nga ci problème plainte bi kon baax na léegi xam nga ban problème moo des hmm. problème nga joxaat ma joxaat lan ma teg ci ñu jox ko booy bi pour mu baal la mais problème plainte bi moom mucc nga ci ndax moom da nga dem dixième moom dañu doon tëj te mënoon nañ laa defee tëj la huit mois wala deux ans wala quatre ans wala cinq ans wala douze ans wala quatorze ans quinze sax xajoon na ci dégg mais man lijjanti naa loolu bu dee yow daal gérer loolu après loo ma jox ma teg ci li ma yor. faal ñu neexalee ko booy bi. faal bi jeex. faal faal maa ngi bëgg a loolu moo la mbir mi xanaa maa li gën a dee. waaye ban dee defal naa ko faal. mënuñoo defandoo liñ defandoo maa ak yow booy bi ñëw wax ma lan may wax ne ma yàgg faal la buy pelante kay xanaa maa yow la war a pelan. sa tur nag laa ci gis man gisuma ci sama. waaw ah, faal d' accord loolu. sa tur d' accord ma loolu. te wax dëgg yàlla li ma def nag mi ngi bëgg a métti man joxe naa cinquante mille pour nga teg ci cinquante mille muy cent mille franc cent mille franc boo ko nee dut booy bi war naa mën a retirer plainte bi. nee naa la cinquante mille yooyu booy bi nga xam ne moom moo tax mu recruter plainte bi moom laa ko jox léegi man damay lijjantiwaat yeneen cinquante mille yow nga lijjantiwaat cinquante mille ñu jox ko booy pour mu bàyyi mu sedd mais yow lañ bind ci plainte bi yaa may ëppale yaa joxe cent ma joxe cinquante parce que man binduñu ma yow la ñu bind loolu la quoi. ma ne ma ne fi mu toll nii mënumaa génne ñaar dërëm génn war xaalis moom tëdd kasoo ma ko gënal. ndax man maa ngi bëgg a sonn ci affaire yi gént yu bon yu may gént bu ma ñëwee jow nga may laaj xaalis booy bi fu ma dajeek moom mu may menacé ka saaga kaaw nag waxul mooy waxam ñi mu ma ko sax teg bët man fi mu toll nii xamatuma sax affaire yi qu'est-ce man te lépp maa yow la yow mënuñ ko ànd maa yow ba fii nga bëggee roccoog di ma bàyyi mënu maa joxe cent mille bërki démb tey nga ñëwaat naan ma ay pour ma joxe waat bu yàggee nag Fall xam nga may def dénk sama bopp yàlla lu xew ma xam ne loolu la moo gën ci man sonn naa sene mar

ma yow baadoola gi nga baadoola ak naafeq gi nga naafeq. nan laa baadoola. yow Fall bu ma tëddee kaso da war a tëdd kaso. pour lan yow lan moo tax pelente bi sa tur sama tur man da ci nekk sa tur ah, na ma ne say wax joo la dem fa a di a def ba ba ñu effacé la ba ma. loolu du yoon non du loolu. non du loolu booy bi. Ah. nee na yow lañ joxoon nag yi mais man liñ ma doon jox dama koy jox waa kër gi ñu koy lekk booy bi booy yaa ngi ma doon jox. Ah. moo tax mu pelente yow. léegi Fall man dama lay pelente kon yow. waaw ba tey man dama lay pelente. waaw nga jóg dem damay dem kër heure boo ñëwee sama place bi ay musiba rek ay waxi police waxi plainte waxi nag laa bëgg ngeen bagoo demal ah man man man nag dugg naa ne rubba rubba ma doon kaf ak doom bu fa taa ba jot ba maa gën a dugg na ma jig mais da nga nga wax ak man depuis ma wax ak yow mais sax nga sëgg sa téléphone bi rek. non mais attends mais encore une fois la bul ma ci ma d' accord. Bachir tamit. waaw ah, baax na mais man maa ngi lay wuyu juste dama yor suma portable rek mais waxtaan bi yàqu ci dara maa ngi lay wuyu. mais xanaa sax buy tëdd baam ku war na mën ñëw di la wéttali nga jug ñuy kaf di fo mais dafay tëdd rek. waaw mais la mais xam nga rek man dama laa xaw a rus nag tamit ah. mais eh, bu ma tojal de loo may use yow mën a yow ñoo bokk génération. loolu dëgg la des naa mën a neex des fois sinap <laughs> mais dafay tëdd rek. <laughs> yow da ngaa bëgg ambiance de. non man. dama defe ni dama defe ni Europe gi nga nekkoon xanaa da nga namm ay ambiance ay ay ay ay ay tanbiir ay sabar ay ay yooyu noonu dafa mel da ngaa namm lool de dama namm ambiance ba sax mënoo comprendre comme waxtaan nga bëgg bëggoon naa laaj benn affaire mais hmm. yow en Europe comment tu vis avec euh, avec avec Kaaw quoi Kaaw lan ngay dundee ak moom ak ni ma ko gisee ci kër gi ak niveau intellectuel bu mu yor ak Kaaw ni mu meloon mais nan ngay nan ngay nan ngay dundee ak dadi de

oui mais Daddy, signé wut ak man polygame de. Oh? monogame lañ signé pour mu leer. ah bon. bien sûr. mais quand xam na lii monogame yi. Oumphane est-ce que du yaa ko dugal ci loolu nag en tout cas signé wut ak man mooy polygame. waaw ah, waaw. mais kaw yow kese la di di di di. est-ce que memang lu ko neex mais man

Hein? ah mais comme une najjo voilà. mais d'aller. ah non bébé toi aussi bébé hein? qu'est-ce que c'est là ah, Qu'est-ce que c'est là hol e c'est qu'est-ce que c'est entre vous deux non il n'y a rien juste TikTok on waroon woon une vidéo mais Daddy non mais on TikTok jusqu'à non non non non non non non non j'ai vu depuis quand j'ai entré dans la chambre j'ai vu toi et toi ah amoon na tamit yaa pouce, moi il pousse ngay pousse ah il pousse ngay pousse pourquoi ça. non mais parce que mais ma ne xam nga ñëw waxtaan. non non non yaay eh eh sukaabi be ne tooy. ah jigéen yi ñuy nekk fe te man nga waxtaan ak jigéen yi si suuf. mais ñi nga xam ne mën nañ ma maam ñii wax ak ñoom Bachir laa mën a waxal mu ngi si suuf. acca seku ma moom daal. acca koof la xam yow ah. man Bachir daal mën naa wax ak moom góor de commencer commencer commencé sax karaw non, non non non non. non non. Ah, parce que c'est sirandal sirandal non je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord bon j'ai parlé avec avec euh, avec euh, Basile. Euh, un peu. Laisse-moi un peu ici, hein? Un peu. Je dis, laissez-moi un peu, je parler avec Passy. Madame. Oui. Ok. Bachir. Hein? Lan si kanam? Hein? Ayaw ah, Diane. Bébé? Non, non, non, non. Yeah, yeah. Bachir, toi, tu es intelligent toi tu es intelligent parce que tu tu sentir que le chaleur est là le chaleur de bébé est là. non mais kaw yo c'est non non Bachir jusqu'à présent. Oumouli te tànga jër. mais kaw tu waroo maa fekk may wax ak sama umpaañ ngay wax ay affaire tapante ay affaire yu jegante ak tamit kaw. Bachir ah, voilà ah non non non. non eh, eh, eh, non mais kaw tu n'es pas un con kaw nga na nga bii non non. tu n'es pas un con. tu n'es pas un con.

qu'est-ce que c'est amul benn problème qu'est-ce que c'est ah. waaw kii li ma won woon pour kii sa paay dem naa ak ñoom waxtaan naa ak ñoom. Hmm. wax ak moom nag mu may jaay yëfi dof naan ma ay nag dañoo corona wax da leen mettre en quarantaine ay nag corona fu mu am. waaw loolu lay wax ma. loolu la wax yow. waaw mu la wax dara dara dara amu ci. parce que man dem ba ci dem ba ci fi def nag yi dem naa fa xool ko def sama enquête bi ma fa demee benn xar laa fa fekk ak ñaari bëy. Basir wax ma leneen waaye bu ma wax loolu waaye. ba ci production laitière bi mu doon def defatu ci dara. butigam bi day waaj a daanu. ndax ñëw ne wax ma dafa daanu palaasam bi daanu naa amatul lu mu jaay man comprendre ma. parce que sa xaalis yow la doon jël. koñ bi yëpp dégg naa ñii xale jigéen ñi lay may ñii mu leen di labal ñii mu leen di def lii ak lii léegi nag kaaw dafa am loo xamante ni boo bàyyee mu sedd man duma ko bàyyi mu sedd parce que héritage la kaaw bis boo fi jugee man maa lay doon man mi sa jarbaat dafa am loo xamante ni jaaduwul beneen bi mooy faal xawma dem naa fa mu naan ma ay xoma ceeb bi lii dama xanaa indi ci kër gi ndekete kër gi ay 2 kilos ceeb la fi doon joxe ay ay ay genn waa xaaj gen waa lii ba rek jàkka ji dara la fa mus sa joxe li nga ko jox lépp daf ko def ci poosam tax wax nañ ma jikkoom ci koñ bi. faal faal du faale waaw. non no defal ndànk. man nee naa ko dama koy yóbbu gendarmerie. non non ci Albert Ndiol laa ko yóbbu mu tëjal ma ko ci biir. kasam déedéet bul def loolu. non non non non non kaw duma ko non duma baye non mu yobbu parce que bu fekke ni alal bi yow sa alal la waaw mais ñun tamit ñun tamit dañ ci am wàll ne fais pas ça ne fais pas ça bu def lool bo defé lool defé ñaaw torop té ñom luñu mënu mel sey bay lañ ñu sey tindi jaay lañu sey onkal lañ ok kaw dafa yomb yow nga nek Europe di liggéey non ñun sa mbokk yi ah nga jël alal bi jox ko ñeneen ñom ñukay exploiter diko lek ñun ñu top pour lan non dédé du ngeen munuñu jàkkal sama alal munuñu ko lek ku ne neex nax laal na laalaak ah kon neex soow moom lii wax quarantaine il m'a dit que les beaufs sont des quarantaines c'est pas vrai ça. kaw boo weddee nga ñëw ñu dem xool dañ dem troupeau ba nga xool. dara amatu fa dara dara dara boo demee ay ngooñ nga fay fekk ay ay ay ay neefere ay neefere nag ak yooyu moo fa am am dara amu fa dara dara dara dara. lépp jóge nag moom def ko lekk wala jabate ñi ko doon liggéeyal ba demee dañoo ne ma ñoom gëj nañ koo gis gëj nañ ba mu ñëwee ba récupérer soow mi lañ jël dem yoonam non c'est pas vrai ça non yi moom day tasi ka ceeb bi da man kenn xam xamu ko lekk xamu fu mu dugal ceeb bi paa boobu moom du ma ko may jar te menacé na ma naan ma sa yaay ak lu ne mu dugg ci non bul dugg si yooyu garaawul les les man daal mission bi dinaa ko doxal wala leneen kaw li ma la wax tamit kaw yóbbu ma mu tukki moo gën nga bàyyi ma fii tamit yóbbu ma mu tukki non munu koo dem parce que non il faut ma yóbbu la sax parce que yow woo ko man a yóbbu mu tukki mais damay xalaat est-ce que duñu travail à distance travail à distance à distance man ak yow ngay delluwaat dëkk boobu ñu liggéey liggéey distance sooy soxla ma téléphone mooy soxla non parce que wax dëgg yàlla euh, euh, say nekka si kër bi hakkelam kii sama xel dalul daal. lan lan la tax dalul. c'est parce que le huitième bébé. waaw mais ba mais. non c'est ton bébé. baax na amul problème baax na. te toi tu es en train de croiser ak li muy ak dans la maison. c'est pas sûr de. Hein? min mbiyete komin hangaɗo andi sukowo tan jetta sukowo tan jaha mom e mbuur mbaɗa li coket rek nde mbaɗama coret te dellu tekk boo de je ne du ma ko d'accord